asalaamaaleykum euh, mbokk yi nuyu nañ leen euh, daloo leen tamit euh, tey ji ak suñu journal ak Sissoko Habbatu Sauda ci foire internationale mi Dakar bii nii mii di 27e édition bi comme ni ngeen ko xamee ay produits Sissoko Habbatu sawda ay produits naturels lañ produit yoo xamante ne du am benn effet secondaire tey jii nii tamit dañoo bëgg rek ànd ak yéen ñu dem découvrir suñu troisième produit mi nga xamante ne loolu lañ leen war a présenter kon nag ma ànd ak yéen tout simplement ñu dem ci jaaykat mi. salaamaaleykum sëñ bi donc dañoo bëggoon xam tout simplement produit bi euh, lan lañ njëriñ ci doomu aadama. bi la ñu wooyee pompe miracle pompe bi day faj lépp loo xam ne wàllum njabar cat ak làmmiñ wala lépp loo xam ne wàllum seytaane pompe bi pour loolu la. bu fekkee ne tam boo xam ne da nga am sa xale wala yow mi nga ñëw guddi munoo nelaw pompe bi boo ko defee sa yaram si kattan yàlla incha allah di nga nelaw pompe bi dafa baax mu da nga koy pompe sa yaram mu nga ko pompe sa oto sa bureau. ak sa néeg te mun nga koo def si ndox tam nga naan moom kay njëriñam dafa am solo lool lool lool macha allah. macha allah euh, mbokk yi ñun ñoo ko dëggandoo euh, produit bi nag euh, pompe miracle lañ koy woowee comme ni ko jaaykat bi expliqué dina faj lu bëree bëri bëri ñun ñoo ko dëggandoo li ma leen di wax tout simplement barina na fii ci foire ba ñëw leen jël ci seen wàll te ñu leen di wax tamit nañ fekkante waat ci beneen journal ak Sissoko Habbatu Sauda ci foire internationale bi Dakar bi nii wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.